son bi ñu ngi lay fay di la ziyaar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow mhm. di dem ba Touba Mbacké nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér mhm. waaye di nuyu di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit mhm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulahat Mbacké bay ñaanal Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar wér nuyu baax sëriñ xaadim na ca kër ga di nuyu njaboot ko yëpp di leen ñaanal jàmm mm-hmm. nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makaarimul Axlaaq nuyu kilifa dina yeewoo ci biiram réew mi léew nañu seen Medina Baye Tiwaan Njaasaan Laayeen Cenaba àndulaay di nuyu waa jaamal nuyu baax waa kër maam El Hadj Ndiéguène ca Thiès di nuyu sunu mbokk jàng bi xam ci ñëpp mbégte kontaante kaapay transfert d'argent bi gën doomu réew mi moom ko ñu wax sénégalais yëpp ñu daw wutali ko macha allah ndaxte doomu réew mee ko moom mhm. waaw boutique solution nekk en face Walfadjri di yëngatu ci garab yi nga xam ne ñooy garab yi cosaan tey nag samay bu mhm. euh, boo ma gisee lacoste bi ma sol ni tey tey nabu gay mooma habillé nabu nabu waaw nabu États-Unis d'Amérique nabu waaw nabu ah, sénégalais siste tey moo fi jaar tey euh, moom ak kii quoi xam nga comme Lacoste Sénégal yi Lacoste Sénégal yi dafa dafa dafa xat toog xaba Assane damaa wax fii ne dama dama wax fii ne déglu ba rek Assane li ba def dama vidéo suba war nga ko teg sooy waa ji waa ji yi ma envoyé ak mbubb ma doon envoyé waajooju jooju ku ko gën a ku waaj boo waa ba bañ. c'est que Assane damaa annoncé fii. est-ce wax ne man de lakostu gars yi. wax dëgg fa yàlla. dangay dem jënd ba pare mii boo ñëwee mu xat. Hmm. comprendre nga léegi nag ma ne woon taay américain yi daal xam naa ne daal taay yu baax la. Hmm. ci kii parce que Sénégal fii xam nga taay genn wàll gi taay chinois yi dañuy indi. léegi nag moom wax ko na bu man wax ko na bu de ba na bu de amul problème naa la xoolal. Hmm. dinaa la xoolal fii quoi ba xam euh, yoo xamante ne bi ndax dina la kii walla waaw xëy na ma saax <laughs> am na ni nga daan wax daal am na koo xam ne comme que da ngaa wax ci kii bi ci biir kii xoolal waa ji xool leen. xaaral ma yónnee ko nag <laughs> yéen mu yónnee rek. <laughs> maa ngi la koy yónnee. non waa ji c'est n'importe quoi. naa la ba pare. alxuraan laa lay wax de waa ji. lii mu ma lii mu ma envoyé. soppe la rek. non lii du soppe kii daf maa compte xam nga non lii du soppe. sooy wu xam nga bi mu demee di jënd. <laughs> indil ma yii wax dëgg fa yàlla ñu ngi ciy sant bu baax dafa rafet te dafa kii waaw non nee na ma kii nag léegi nag moom comme que moom bii moom daf ma ko jël may ma ko nee naa ko nag nabu nag dem parce que ma dem jëndal waaw hmm. ah, jënd bi ah, moom mooy doon wax de nan no saa yi dut ma topp ah, wax am ne gars yi ñu dañuy jënd daal mhm. yooyu moom mu defee ah, mais dama ko indi ba noppi ma wax ko waa léegi na naka lay demee mu ne ma. Mhm. ma ne ko ñaatale mu ne ma bon lii moom dama la ko defal addiya la. mais li mu def rafet na macha allah. Ah, waaye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. nabu coton la ah, coton la kañ. nabu nit nabu nit ku baax la nit ku baax coton la nga mais laaj ci. <laughs> dina ma ndax coton la asal lii loo ci. <laughs> non en tout cas ñu ngi nuyuwaale frère am ba ca Thiès waaw Papa Gaye ah, ñu ngi koy nuyu frère am ba ca Thiès laa. ah waa ah kii nu mu tuddati Sowaaji. <laughs> Sowaaji. sa copain bi nu mu tudd ñu ngi koy nuyu. daf ñuy teewlu bu baax. nan la tuddati waaye dafa affaire bi. tur bi laa Assane la est-ce que Assane. tudd Assane déedéet. tudd Assane non non. Hmm. macha allah ah, dafa rafetlu ñu ngi nuyu ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant. non dafa rafetlu vraiment jërëjëf. na rafet na moom kontaan nañ. macha allah rafet na te jot na. yam na. waaw. waaye léegi kon yow bul ko yónnee ci affaire yi. li ah, nga ko doon yónnee li non li nga la. non du ay ba Assane. di ko ba kii di pare moom moo déclaré njaay wàcc sa terrain bu ah? dugg sa marché ya. gaa di xool di ko tànnal loolu kay mbégte la te dina ñëwee. non non non non li nga tànnal force dina ñëw. non non loolu. CP lañ gudd waa dina ñëw. loolu ba xam moo di xanaa bu ñëwee yaa koy sol. yow mii na ko jox. Ah, non Assane li ma gis fii yow. billaahi li ma gis fii Bombardier ëpp na ko. non ah, kii day caaxaan quoi bu fekkee waa ji waa ji day saboot bu ko ëppee dina ñëw de. bu soobee yàlla da nga ko sol léegi yow fu mu koy doy. ah hélas ko moom xanaa da nga ma xaritu mbër yoo waxaaleel ba pare. ma ne hélas ko moom moom nee na gis naa hélas yii laa ko tànnal da laa gis. waaw ah, yooyu bugguma comme ni la naa ko gisee n'est-ce pas man la tax bugguma. comme ni ñu la gisee tànnal la bii mu yem ci yow. <laughs> moom noonu la la gisee tànnal la. Ah, te day yem ci yow bugguma nee ko bugguma. da nga ko bëgg de. non bugguma. ah baax na bu fekkee dinañu. waaw Assane lii fu ñu ko mës a gisee. man ni da koo jënd si xol bu sedd guy andi ko fi. mën ko ñàkk jënd ko ci xol bu sedd guy. non oh, kee day laaj pourtant da non waa ji sabot sabot ko solde ah, dina de vidéo bi dinañu def ginnaaw da nga ko solde <laughs> balaa après dina ñëw ah. insha allah Modou vidéo ba pare na euh, Assane hmm? te nag Assane maanaam li ma jaaxal Assane sama waa ji ma ko am waaye maanaam Assane ni morom ni sax hmm? lay torturé waaw ci nekk lii lii nekk États-Unis dem sa marché ba tànn maanaam vidéo yow vidéo yi nga bëggul sax alaaj yi nga xam ne yow bëggoo ko doo ko seetaan eh, Assane la moom waxoon daa bëgg mbaax de mooy kii bi kilo bi mbabali ana mbabali mbabali lan ay pantalon jiin nga naan mbabal. non non mbabal. ay jiin nga naan mbabal jiin. Oh, jiin américain. jiin américain la ah. sebolaaya. Ah. di yére ñoom nii waa xam nga lii. lii lii nañu waxante dëgg nag. lii day saboot lii. nañu waxante dëgg nag ba pare naa hélas su bëggee yii am na fi. moo indi indi soo bi. mi ngi si marché bi di tàmbali. xoolal xoolal ñu ko de yii yëpp tànn. sa marché ba la dem. tànnal la ay jiin ak ay t-shirt dina la wan t-shirt yi mi ngi nii. voilà kii nañ kii kii lii na ñëw na ñëw. nañ ñëw nañ ko ëttee CP mu ñëw. lan bëgg a jaay. yow Sadio nee na waaw mais lii kan la koy jaay dafa am. yow yaa ko moom yow boo ko soxla kay noonu. yow yaa ko moom. alaaji man yaa moom jii nii. alaaji jii nii moom. non alaaji alaaji xaaral am na lu ci ne. léegi yow comme nee nga yow soxla wul direct ñëpp seetaan na. kon moom am na soxla wul de eh, soxla waale kon ay <laughs> xam ko bëgg a jaay bu fekkee dafa am xaritu mbër moo am koo jaay xaritu mbër fan lii moom moo ko El Hadj ko moom <laughs> euh, yow kii bu rekkoon Sénégal ma plainte ko la ko sam waaw ngi yàlla bi mu nekkee bi ah, am na waaji am na waaji wax daan ban président la nekkatu waaye li jàmbur bu <laughs> ah, naan de <laughs> Euh, mii noonu am na solo euh, alaaji euh, ñi ngi souhaité bu baax souhaité ñi ngi souhaité as saaxu anniversaire as saaxo as saaxo jigéen di ah, baax as saaxo non non non damaa am lu ma gis loo xam ne assan da ko naqari te wax dëgg fa yàlla non Assane loolu mu bëgg a leeru tamit wax dafa war a leer non waaw parce yow it nag yaa ngi koy forcé naan wala nga bàyyi ko Assane nee na noonu alaaji waaw <laughs> man maa ko tourné <laughs> vidéo su ma bañoon yaa ko bëgg alaaji man su ma bañoon mu su ma bëggoon mu yàqu kon du ma ko tourné man maa ne ko kaay ma tourné la nga wax sa doléance parce que lii jaaduwul mais itamit du nangu sama doomu ndey jigéen du ko définir moo tax ma ne ko bàyyi non non bàyyiwut waaye Modou ma ma ko garaawut waaye damay naqarlu day naqarlu ah, léegi Modou ma ma xool ma xool wax dëgg yàlla ma xool lii moom wax dëgg euh, Diop bi ñëw man dafa am lu ma naqari waaw li ma naqari mooy sunu anniversaire bii nga xamante ni moom la ñuy feete muy anniversaire u Sakho bi. waaw doon nga ko wax ci waaw dama koy feete dinaa ko feete altine talaata àllarba semaine bi yëpp dañ koy feete. mais li ma si jaaxal samedi bi moom bu koy feete dafa am ku mu toogal di ko leel. muy lekk kan kan di leel. as mu doon leel benn waay. non non astafurlaa benn ak nit. nit la doon nit la doon leel nit ku góor ak ku jigéen ko xam ma moo ma naqari. muy leel vidéo baa ngi nii. anam xoolal.